jàmm dal defa laa jëm bi bienvenue ci lay dalal waa mu assasa fin ay xaleel yu raw njëkk alhibu wataxattu wa xërwilu kullakumu alxiqu biti xiddaar yi bane xequ daal di dikk lamb sàcc na sampal sa nënd ngir bëgg tëgg nënd yaa ngi fi taajee di baxru jiy gaw ka tëgg noonu wayee suñu meññit ci lëñ dëtam géex ci xalam moo waral fu ñu joosee lu rëy ñu dëkk ñëw la dugg taalifit ku ganam mën na ñëw te jël palaas di jug am na cax ami am na waaree te am na tag kon mu assasa ñoo ngoog di lii bu tey sant danaa shukran jërëjëf merci tënk jiw jaraw la ko bismillahi rahmaani rahim Seex Sidi yow te nga far àbbu galañ ta nga way mbëru waada jàmbar ja doon alim te ta way cheikh sidi yow te nga far ab bu galañ ta nga way mbëru waada jàmbar ja doon alim te ta way demal nga ab bu di jaal mor kay ra gaaw te nga ñëw bu saydi jox la mbubam moom ahmadoy ka ko may abu tayib mutanabbi bul ko fàtte tamit tëjal xësal ak xayaalam xel ma yit bu ko may cheikh samba jaara nga jël xit tas ga daal ne wëlëñ te awut ci sëñ mbay mu may lak daa tegaane ca fooy nga jaar ci ñàmmi te jëm koo ñaan xaliima gu ñëw tasol ko ngir di ca joosi way yu deesu la sooy nee naa sarax nee naa sarax jëm ci àllub kaañ bu yaane fa yax bu wet lëndëm bari ay ñax tax ma dëgg mu di jooy amul lu dul ay garab sumpak taxaar ba ci jëm nii maaga lingoon nga màngook kàddu ngeen ba ci buy te am na ay picc jàppal tur ya may bëgg a wax bi tax ya ak tan ya ak nooyin nanga tey di congoy te géej ca day duusu teen yay bann ndox ci lu xiir seen dex ya daa gim seen dex ya gim seen dex ya gim amul lum ndox taal ya boo ne ca fay may sàkk wallu tanaa kan moo ma fii jële tey wuy maa gëlëm wuy maa gëlëm jom mi ngir sama bëri mooy ma jekk rek gis na mel ne jant tël di ñëw ma taf tafal fit mi ngir tiit gëmm yuuxi ne mu naa ma xëyaa li na sab tey ngëlam tegi jeex yàlla la xéewale lii tey kon dalal ta noy man naa ko sukkaral jasiilal yaa ma génn ci loolu loolaa waral man man naa jaajëf lu walla ma tey kookii ma lay junj moo tax kan daa di wedam bu sayri xasan ki lee tax ñuy sangee mu ma lay junj mooy bàyyub sëriñ maramu imam la woon fii masaalik na buur di ko fay kookii ma lay junj